jërë ngeen jëf mbokk abonné yi Médina TV HD dinañ xamal ni ko rek tey ñu ngi woon fii ci tribunal pour fekkee atte bu ñuy atte Mamadou Thiam alias Bébé Diène Bébé Diène l'enfant chéri de la Médina tey nag ñëw na jànnoog euh, juge d'instruction bi bañ ko laajee weddina tuuma yi nga xam ne moom lañ koy toppee gannaaw bu avocat bi intervenir bébé Diène xamal leen ni que mu ngi amoon cent trente et un mille cinq cent francs ak iPhone X ci donc moom jarul moom dara ay portable wala di ko ay portable bébé Diène précisé na encore ni que chaque deux semaines day joxe dépense ci kër yaayam jaaykatu yàpp la mbër la mbër bu ñu ràññee donc amul lu muy sàccee donc bébé Diène gannaaw bu ko juge dégloo juge bi relaxé na ko bébé Diène est innocent verdict bi tombé na bébé Diène relaxé nañ ko bàyyi nañ ko mën na delluwaat ci ay waajuram defe naa ni lii moo nekkoon actualité bi jërë ngeen jëf ñuy continuer waat si yeneen actualité avec la Médina TV HD jërë ngeen jëf Yo, yo.